salaamaaleykum euh, mbokk Sénégal maa ngi tudd Racine Mamadou Guissé euh, maa ngi dëkk Pikine euh, Rudis di di di nekk Rome di di les artistes sénégalais yi nekk foofu xam nga li may bëgg wax nag moom mooy pour affaire comme somme bi ñu waxoon ne jox nañ ko dindi nañ ko débloqué jox jox ko waa Italie dama bëggoon indi si leeral rek ci gàttal ne am na fekkee ne jot am na sénégalais yi jot. man sénégalais yi jotul laa laa sénégalais jotul yu la yu yu xam ne jotuñu dara laa xam man kañu jot wala laa dégg ñu jot man ñu ma déggum ñëpp plus de un million de sénégalais yu nekk ah, ñu nekk Italie dañ ne ma carrément raas ñun jotaguñu un franc Mali envoyé nañu email tontu nañ ñu léegi dañ ñu wax nañ bu ñu dégloo.

parce que léegi si Sénégal comme que affaire muuroo moo fi am moom déjà kon muuroo lañ ko mun tuddee quoi. xam nga lan ngeen xaar ministre non ministre yi xaar rek pour moom mu xam loolu quoi parce que xëy na xamu ko parce que des fois ñu ngi ñu ngi ñu ngi condamner un ministre wala un président fekk ne moom il n'est pas au courant de ce qui se passe est-ce que xam nga ma la wax. nga ngi condamner le président fekk xam ne fekk ne moom liy xew xamu ko moom day jël en en en en foam joxe pour ñu def lu baax. yi génn gars yi def ci lu bon xam nga comme ministre bi lu mu koy wax nii rek quoi moom xëy na moom xalaat na ne affaire bi mu ngi jaar yoon au niveau de l'Europe or que ne jaarul yoon léegi man dama koy wax carrément devant les médias ne ko ne ko yi fa nekk man maa ngi ay audio fii su bëggee mun na ma convoqué man ma wax ma woo booy sénégalais yëpp kenn jotu ci un franc Mali ñi nekk fii Dakar kenn jotu ci un franc Mali. xam nga xam ne euh, ay animaux yoo xam ne la c'est en voie de disparition yóbbu leen ko bu normal jii ministre de jël ko di ko euh, est-ce que mën naa laaj benn bu ndaw est-ce que xam nga këyel boobu nu mu tudd yow. xam nga oryx bam valeur la am. non non xëy nga xëy na mën nga ko xam ni parce que yaa ngi Sénégal fii mais oryx boo demee au niveau de l'Europe boo nee boo demee ba eh, oryx dañ koy vénérer mangi ngi tuub ci lu mu quoi mais xam nga ñu koy vénéré parce que dafa nekk. Ah, dañ ko fonku. dañ ko fonk léegi fonk bi nga fonk xam tax parce que dafa dem ba bëreetul dafa dem ba ab bëreetul comme ay nu ñu doon waxee ay dinosaures ak affaire yooyu non. voilà dafa nekk à voie disparition léegi ñu jël ci ay oryx yooyu jox ci Sénégal jox jox Sénégal pour waa Sénégal am mun fi am meññeef ñu jox oryx yooyu jox ci waa Sénégal fi. jël ko jox ko ba sunu sunu kii bi euh, nuñ ko doon waxee. non sunu po fu ñuy denc kii yi suñ réserve suñ réserve nationale bi yóbbu ko fa bu ko ko fa yóbbaa ministre bi jël ko moom ñu da koy yóbbu réserve privée am ci yoon bi jëla quelque oryx de sëñ bi loolu est-ce que jaar na yoon loo xam ne yow Sénégal yi lañ ko jox ñu mën a reproduire ah yow nga jël ko nga ko yow da nga yow da nga koy jël si yóbbu ko sa yóbbu ko sa ferme yow mais non mais ban ci ban Sénégal lañ nekk non ci ban dëkk lañ nekk su bëgg bëgg Samba Ndiaye defoon su bañ tëj ko xam nga mais c'est insensé man damay toog damay tiit man damaa tiit man damaa tiit ci Sénégal actuellement mais Macky Sall xam nga xam nga Macky Sall waxul warul def sanction kese si Abdou Karim si euh, si moom si kooku rek de Macky Sall euh, ci ni ñu mu def ñu mu war def sanction dafa bari dafa bari parce que Macky Sall man wóor na ma ne moom ak ak bon foi lay jël ay affaire di joxé pour ñu sédalé sénégalais yi wala pour ñu jox doxalé ko ni sénégalais yi duñ ko doxalé noonu mais man dama gis na Macky Sall ñoom ñëpp la wara bolé condamné ñom ñëpp la war a war sanctionné. mel comme ñi saaga ñu dégg mais saga mom déglu dama né la dama né la saga saga mom dama né la que soit muy yow muy man muy Macky Sall muy kenn kenn amul amul amul amul yoo euh, droit taxaw 16 millions d'habitants sunuy papa sunuy yaay sunuy maam sunuy doom ngay dagg ay saagay ndey non non loolu amul benn foo xam ne ni amul fenn foo ñun fi ñu ko dàq book boog yarewuñ ko man man ci Haalpulaar man ci Haalpulaar man yarew man rus na rus rus naa saa génn sama gémmiñ quoi xam nga mais buñ toogee nag ba léegi état bi moo doon tëj ñu doon saaga léegi état bi di saaga non fan la nekk non non nee ma fii lañ nekk quoi. état bi da doon jàpp ñu doon saaga mu leen di tëj léegi moom mooy saaga léegi ñu xool nu muy def nag léegi ñooñu ñoo comme que état bee saaga ñu xool nag dinañ tëggante seen biir. léegi nooy tëjee sa mot non sa mot sa sa mot nga mot final bi moom mooy mooy nañ defaraat sàppa yi quoi nañu xoolaat sunu bopp ñu xam ne Sénégal dafa mos a nekk euh, réew teraanga réew réewu cër xam nga li ma la wax réewu éducation. ñun boo gisee bitim réew ñu fonk ñu ndax res ndax éduca ndax ndax ndax éducation bu ñu jëlee fii yóbbu ko Europe moo tax boo toxolal toxol tubaab bi boo ne ko sénégalais moo def lii daa defu ko sénégalais xamul loolu est ce que xamul ndax mais actuellement nii lii lii lii nii bu ko bu ko bu ko monde bi déggee ñu fan la wax ñun mais li lii lii gàcce la la la man sama lii rek laay kii ah ma Macky Sall je ne le condamne pas mais na xoolaat entourage am Macky Sall na xoolaat entourage am parce que tamit si c'est loolu lu wax tamit yi saaga na mais am na lu mu ci loo xam ne nii saison des faits am na mooy lii ñuy jël seeyal ay quarante tonnes ay soixante tonnes ak kii nii mais ñooñu nañ ko jël suñu alal delloo ñu ko voilà.